la maternité Elisabeth Diouf bu soobee yàlla parce que incha allah euh, parce que man loolu mooy sama conception aussi waaw dañuy yaa euh, forme une personne tu forme tout un peuple je suis je je, je suis enseignante de de base léegi samay action yi toujours damay bëgg muy ànd ak ay formation ay sensibilisation loolu moom moo tax don de vêtements yi may bëgg a def à la maternité d'Elisabeth Diouf dégg nga ma bëgg ko boole comme bàjjanu gox nga ma xam naa ni xëy na yëg nga information bi bu ko defee le 26 incha allah dañuy def foofu distribution de lait parce que bi may ñëw comme sànq ni ma waxee woon toujours ay partenaires dañ may woo dégg nga di ma ne am naa am naa tel produit est-ce que di nga mën a euh, euh, mater euh, commité de santé Elisabeth Diouf maternité Elisabeth Diouf fan la taax kaw ah waa taax kaw waaw waa taax kaw